Fama jaajëfal leen bu baax a baax di am mbégte di jënd yéen chaque jour contentement bi nee naa leen leen li gën a fas ci xibaaru làmb la noonu laay def nuyu ko nekk ñi ñuy topp ci réew mi ak bitim réew jaajëfal bu baax a baax waaye nuyu sama mag ji Mbaye Babacar su ma fay daal di ñëw jukki li gën a fas Mbaye maa ngi leen nuyu jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la Mbacke Balla Aïssa te moom jukki leen bi da nga koo taaw yi jaajëf kontaan ñi nga xamante ne bii ñi ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam fas yéene ñëw jukkil leen li gën a fës ci atu yéenekaay yi bind ci wàllu la noonu la def rek daal di sant di gërëm sama partenaire bi ma àndal di huile J'adore indil ñu bu gën ci huile yi baax set sell sans cholestérol ñu ne déet daal ci teg vermicelle J'adore macaroni J'adore spaghetti J'adore ñu ne déetat waay mm-hmm. teg ci attaaya J'adore kenn du Aziz Aly Ndiaye al amin al amin borom borom J'adore arburax borom alburax mi ngi noonu euh, ba léegi xam ngeen ne tamit suñu partenaires yi bokk na ci Eau Kayar di ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar ndox mi sat na sell na neex na oyof na ba pare neex a jëfandikoo ba pare nag ñu koy jaay population bi ci prix bu abordable maanaam prix bu yomb ba nga xamante ne bii ku ci nekk mën nga cee jote ku ci nekk mën nga koo jënd Euh, ñu bëgg ku ci nekk consommer ko loolu moom moo tax ñu leen koy jaay prix bu abordable. ca noonu laay defee saraax ci journal suñu làmb comme xëy na di xël xëtam bu njëkk di bombardier le B52 de Mbour prévient Balla Gaye numéro de le lion de Guédiawaye dama koy xamal nag ko j'ai plus de 30 marabouts et tout tous on m'a promis victoire maanaam 30 marabouts yëpp. dañ koo dig ndam. dañ koo dig ndam waaye nag làmb moom euh, lu mën a xew ca biir géew ba lay xewee. maar sëriñ nag ci la bokk Bombardier moo wax loolu wante yemul foofu daf ne am naa fanweeri sëriñ wante maa ngi wut ñu ma ci dolli ah xanaa kon sëriñ yi nga xamante ne bii bëgg na noo ñaanal Bombardier mën nañoo annoncé wu. Mhm. après dinaa leen jox numéro Bombardier ngeen woo ko nee na fi mu toll nii am na fanweeri sëriñ wante mu ngi wut ñu mu ci dolli. dara yutteelu ko lu dul jël ndam li ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy bopp moom moom mooy Balla Gaye ñu laaj ko mara yooyu nga xamante ne bii am nga leen ñaata nga dépensé ci ñoom ñaata nga leen jox ci xaalis. mu ne mënuma koo calcul xaw ma naka la toll ndax damay génne rek di dépenser damay génne rek di joxe loolu moom moo tax mënuma calculer li nga xamante ne bii moom laa joxe euh, ñu laaj ko combat bi le 31 juillet lan lañ mën a xaar ci B52 bu Mbour mu ne li ñu mën a xaar bari na li ñu mën a mën nañoo xaar lu garaaw wante dafa am benn défi bu nekk sama kanam mooy troisième fois roi des arènes te Balla Gaye moo taxaw sama kanam il faut moom bëkk ko mu daanu soo ko jëli couronne ci noonu nag kii di Siteu Siteu met en garde Papa Sow la mu koy xam ci journal bi nag mun na ko je suis un bon bagarreur je je l'améliore maanaam xeexkat la. waaye mu ngi koy yokk. te journal record ba nag mu ngay wax ak ki nga xam ne mooy Papa Sow nee na ko li mu gis instant bi ci bëtam te teg ko ci bëtam mooy victoire ndam rek. Euh, diggante suñu làmb ak record ñoom ñaar ku ci nekk bind na ci. Euh, jàkkaarloo bi nga xamante ne bii fii si tamit ko doon jàkkaarloog démb presse xam nga Papa Sow moo njëkk a woo presse bi jàkkaarloo ñoom waxtaan ak ñoom. Mm. le lendemain Siteu tamit def la même chose woo presse bi waxtaan ak ñoom wante Siteu bi mu ñëwee waxtaan ak presse bi daf leen ne euh, Papa Sow barki démb bi ñu jàkkaarloo fële ca stade Iba Mar Diop nee na man aw ma doole mais incha allah le premier août su summeekoo ma summeeku ñëpp danañ xam ndax man liggéey naa wala liggéeyu ma ndax combat maa ngi koy waajal comme ni ma ko war a waajalee. ànd ceeg sama ay coach ànd ceeg sama staff ànd maa ci ànd ak sama famille rawatina sama dëkku cosaan ba nga xamante ne bii fa laa juddoo maa ngi ciy ànd ak ñoom lépp lu ma war a def ci combat bi dinaa ko ci def euh, record ne. Euh, Siteu fi mu toll nii gisul dara lu dul dox ci kaw ki nga xamante ne bii moom mooy Papa Sow daan ko pour mun a jàll ci leneen. ca noonu nag la CNG met de l'ordre dans l'arène du ma ne sax met de l'ordre mais dama ne remet de l'ordre dans l'arène ndax mm-hmm. bëri na ay désordre mm-hmm. kayit bi njëkk a dal ci ñoom nag mooy bébé judde julde ak nga xam te ne mooy njaaxum suspendre nañ leen Mbaye Babacar ñoom ñaar suspendre nañ leen li des ci saison bi wante dañ ci ànd ak seen écrit ba ñu bokk muy écrit Cheikh Mbaba ndax ku ne xam na ne làmb yi amoon foofu ci euh, euh, ñu koy waxee làmb yi amoon foofu ci arène nationale ñoom ñaar dañ fa doon andi li nga xamante ne bii moom mooy ay ay ay xeex loolee tax waa CNG daje amal li nga xamante ne bii moom mooy euh, réunion xool càmbaraat li nga xam ne mooy procès verbal yi xool laka ndax lan moo ci tukkee mais liñ mën a tënk ci ndaje mi bi ñu paree mooy que ñoom ñaar ñooñu aj nan leen di des ci saison bi te noonu nag Mam Mor ak nga xam te ni mooy Cheikh Super jamono jama yi kenn mu tëgg boobu la choc borom jam production Mbaye Babacar. mu war am incha allah bu ci yàlla àndee le 15 le 15 août incha allah euh, foofu foofu ca arrêt foofu ci stade Iba Mar Diop euh, jam production moo taxawal boobu la combat le 14 août lay am dimanche le 14 août foofu ci stade Iba Mar Diop ak jam production di euh, promoteur ba nga xamante ne bii nag ku ne xam na ko ci tëgg ay espoir ay xale ya nga xamante ne bii làmb. da leen a yaakaar loolee tax mu tëgg Maam Mor ak ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Super Diamono incha allah di combat bu nar a neex. beneen combat bi amee fii ci national nationale mercredi bi maanaam tey ka ko tëgg nag di Mor Mbaye. Uh-huh. la mu tëgg. armée bu ngéwél gi ak nga xam xamante ne mooy bébé daaro ñoo fa nar a jàkkaarloo bisum tey ji Mor Mbaye mooy borom ngéwél gi production borom dat datam la moom moo joxoon Pape Thialis Faye le 8 août ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax. Pape Thialis tamit jaajëfal ko ci ne jërëjëf Mor Mbaye mi nga xamante ne bii moo ñu jox dataam jërëjëf Pape jërëjëf Mor mi nga xamante ne bii moo jël date bi mu amoon jox ñu ko mi ngi noonu tey moo war a tëgg fële ca arène nationale di tëgg ñaari xale yu bari coow nag ñaari xale yi nga xamante ne bii dañu bokk ci làmb nday nday nday Mbàkke Mor Mbaye di promoteur ba nga xamante ne bii tamit bu mët a bàyyee xel la bu mët a encouragé la ndax moom tamit day promouvoir jeune talent yi mu tëgg ki nga xamante ne bii moom mooy euh, armée bu ngéwél armée bu ngéwél nag ku ko xam-xam ne mbaru mbaru géwél la tey buy ñëw day andi ambiance day mobiliser mu war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, bébé bébé daaru bébé daaru moom tamit nekk champion mën a bëri am gannaaw lool tey daal ñu mën a xaar combat bu neex foofu ci arène nationale ak ngéwél gi production ca noonu nag ci remettre de l'ordre dans l'arène bi nga xam ne waa CNG jugtee kii di vite fait ak Elo fils de Falaye raqu saatees boobu exclu maanaam ñoom moom génne nañ leen ci waaw vite fait ak euh, Falaye ñoom ñaar euh, euh, exclure nañ leen ndax ñoom ñaar dañu amaloon ay xeex ñoom tamit ñoom tamit yet bi dal na leen yetu CNG bi dal na leen ñoom ñaar tamit dañu amaloon ay xeex foofu ca arène nationale euh, ñu ne vite fait moom doomu Serigne Ndiaye la suñu papa Serigne Ndiaye nekkoon champion elu moom tamit nekk doomu Double Less nekk rakk ci Sa Thiès ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp ñu boole leen euh, suspendre li nga xamante ne bii moom moo des ci saison bi tamit ak moom te noonu nag galaa ba nga xam ne association jant bi ñoo ko organisé Pakala Junior rek moo fa jël raw gàddu ko ci kanamu Arlem waaw euh, ASC jant bi nekk fële ca Mbour Géej bokk ci zone 4. ñoom ñoo organisé li nga xamante ne bii mooy gala bu mag boobu euh, ñoom nag dañu war a dem fi nga xamante ne bii moom mooy phase nationale yi war a am fële ca Thiès incha allah te ASC yi nekk Sénégal yëpp yi nga xamante ne bii ñoom ñoo jël seen ay phase régionale war faa daje incha allah bu ci yàlla àndee ñoom ñuy waajal euh, événement bu mag boobu ngir soqale ko ci wàllu koom-koom taxoon ñu tëgg benn làmb pakala moom moo fa moom moo fa euh, pakala bu onkaat. moo fa am ndam ci ki nga xamante ne bii moom mooy euh, parce la moom moo fa daan ki nga xamante ne bii moom la doon bëreel ci jël ba nga xam ne amul benn werante jël bu rëy jël ba nga xam ña fa nekk ñépp xam nañ ne paka la mbër la mu ñu mët a bàyyi xel ndax mi ngi ci yoon te dafa nekk yaakaaru làmb. teral na combat bi dox ci diggante Tmax ak Brise de Mer nag sële nañ ko Mbaye Babacar. te Max ak euh, Brice de maire numéro 2 loolu incha allah di combat ba nga xamante ne bii combat bu neex la war a am incha allah bu ci yàlla àndee la le war a am incha bu ci yàlla àndee ci fan yi ñu dëgmal ki nga xamante ne bii moo ko wal mooy Baba jam Baba Diaw moo taxawal boobu la combat barki ba rek gis nañ mu tëgg lamb ji neex macha allah moom tamit ku ne xam na ne Baba Diaw ay événement am day neex suñu lamb nee na combat boobu tamit combat espoir la combat la ba nga xamante ne bii mën nañ ci xaar bëri mën nañ ci xaar xeex ndax ñaari xale yépp ay attaquant te noonu nag dañuy dem journal les ginnaaw ba Balla Gaye di wax naan di contesté roi wu ki nga xam ne mooy Modou Lo. Hmm. Modou Lo xale ba ca parcelle làmmiñam damul ci poosam ndax dina xëy daal di koy ton tontu bu sax sàpp Mbaye Babacar. bu sax sàpp la tontu moom ak ki nga xamante ne bii mooy euh, manager di euh, Birame Ngingue. Hmm. Birame moom bi ko laajee ne li nga xamante ne bii loolu la Balla Gaye wax barki ci tali bi lan moo ci sa gis-gis nee na ku ne xam ne diggante Ama Balde ak Balla Gaye diggante famille Fallaye Balde ak famille Doubalès hmm. te. Ama dafa war a bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Modou Lo nee na Balla Gaye waxam yooyu muy wax jubluwu ci lenn lu dul jéem a déstabiliser Modou Lo kese la ci jublu mais nee na pexem du sotti ndax Modou loolu yëngalu ko te it wu ko ci benn côté roi des arènes moom fii la yeewoo fi nga xamante ne bii moom mooy Parcelles Assainies ku mu neex ak ku mu neexul yëpp fii la yeewoo fi nga xamante ne bii fii la Modou xarañ loo dëkk nee na face à face bi amoon fële ca. Euh, 2STV euh, wala TFM sax nee na seetaanu ko nen dañ ko nettali rek li nga xamante ne bii loolu la Balla Gaye wax mu ree rek jàll ci leneen nee na daal waxam yooyu nekkul la nga xamante ne bii mën na leen a yëngal ñoom mm-hmm. mu ngi noonu noonu dama koy jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fës si xibaaru làmb Mbaye la tàggatoo yi li muy tàggatoo yi bi nga xamante ne bii mooy suñu caméraman di ko ñaanal jàmm ak salaam di kontaan ci moom di kontaan ci équipe Leewtoo TV bi yëpp di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee Euh, suba ak jàmm wante di leen wax ne incha allah bu leen fàtte journée Diourbel production bi nga xamante ne bii moo war a am bu ñu tabaskee ba mu am ñaari fan fu la ci stade Elimanel Fall te ngeen gis plateau bu yànj bi ñu ci def démb. fii ci Leewtoo TV muy dox ci diggante Balla Moussa ak ki nga xamante ne bii mooy guy gi bumbutaay mais drapeau boobu dañ ko jël dippee ko jàmbaar tuddee ko gaynde tuddee ko ko nga xamante ne bii. ku am engagement la ci dëkkam kooku mooy Serif Atkhana Fall di nit ka nga xamante ne bii macha allah booy wër nit ku jàmbaar wala ngay wër nit ku am détermination wala ngay wër nit ku bëgg fa mu dëkk boo yemee ci Serif Atkhana Fall da ngay dem moom laa tuddee le futur maire de la commune de Diourbel kon daal incha allah bu ñu tabaskee boobu am ñaari fan Serif Fall nee na ma combat bi événement bi cofuma ko de dafa rëy ci man te incha allah su ma ñëwee stade ñëpp danañ xam ne ñëw naa ak sama délégation bu ñu tabaskee ba mu am ñaari fan. naa la. damay ñëw invité naa Fama. dañ may muur dañ may muuraale. incha allah bu ñu yàlla. jàmm ji bari noonu laay def daal di sant di gërëm sama caméra bu man bi di mbég ci moom bu baax a baax Fama Dramé Kanju Soose bég naa ci yow waaye sant di gërëm équipe technique Leewtoo TV Leewtoo production ñëpp jaajëfe leen bu baax ñaan leen jàmm te di ko sàkku ci yéen ba ëllëg incha allah